ñu soññ ahlu xasida yëpp soññ ñi kuréel ñëpp soññ ñi durus ñëpp soññ ñi raj ñëpp fu kuréel xaj fu nit xaj ci diggante jumaa jéeg li ko war lépp ñu ne di dundal bis boobu ba juróomi waxtu noonu la ko waxe la cay war nag lam ca jot nañ defar na lépp waaye ñun ñiit ku ne xam na ni sëñ bi dafa woote ci liggéey boo xam ne ñu nit ñaan nañ ko sëñ yu si ñaan na ko ñu nit luñ ci mën a barkeeloo rek ñu barkeeloo ko kon na kenn ku ci nekk nga waajal ko jàpp ni bis bi moom sëriñ bi na yeyoo na ay téeméeri téeméeri nag lu ci waay def rek doyut loolu noonu la ko waxee kon nag nañ fexe ba gàllo gi dem goo xam ne wóor nañu dina yegg fa mu jëm ñu fexe ba kenn ku ne la nga am mu yóbbaale la ko ci li ci am solo mooy balaa bis ba dinañ def ay ndaje xool nu ko seriñ bi nu koy nu koy gën a nal ak nu muy gën a baaxee waaye na kenn ku ne daal waaj ko wàccaay woo xam ne na nga xam ni moom mooy bëgg ko sëriñ bi waaw la nekk ci pas-pas yëpp nag am na ci loo xam ne moom maanaam néexut a wax ci ci làmmiñ ndax sëñ bi ko waxee moom képp moo ko mën a waxee noonu waaye daan nañ xam ne dañ doon ni ko sëñ am sa waxee ñun dañuy déglu ndigal doon xool lu lay bégal doon xool lu ñu la liggéey la fi ñu joxañ nag incha allah foofu la ñu fas yéene nekk amatuñu génn yitte judul jooju kon nag benn fan boobu nag ñëpp waajal xam ne incha allah dinañ ko yendoo ni ko sëriñ bi bëggee luñ am ak luñ xam ak luñ am lépp incha allah fas nañ ko ci yéene dugal mu ñu bàyyindu ko ñun ñi nga xamante ne jëfe moo ci suñu wàll incha allah nan fas yéene kenn bañu cee man waaye na xam ne jëmm ji ñu àndal nga xam ne sëriñ bee ko sëriñ bee taamu woon gis ko tawféex yu bëri daje ci sëñ Moustapha moom sëñ Mahmadan mii ne fa ñi nga xamante it mooy sëñ Ibra euh, Guèye ak si Abdou Lahad Touré fekkee ko loolu doonaat mbégte moo xamante ne kenn xamul fu mu toll kon man ci ndigalal sëñ Mouhamad sëñ Amsatu mii ma leen di wax ne ndigal ndigal jóge ci sëriñ bi jox na ndigal sëñ Amsatu mi mu ànd kook mboolem koo xamante ne da liggéey ci xaside yi ñoo xam ne bis a ngi suñu kanam bis boo xamante ne dañu fas yéene yëngu ci xaside yi delloo lépp sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi mooy xaside yi nin ko bëgg a fonkee ak nin ko bëgg a liggéeyale xaside yi mooy waar wi loolu nag bu ci sëriñ bi wooyee seen am satu mi waxu ko kon dafa mel ni lépp matale na incha allah bis bi nga xam ne mooy doon bis bi jëkk ci weeru muharam buñ ci tolloo dina am woote yu gën a yaatu yoo xam ne dinañ ko def am na liggéeyu njàngum xasida mu yaatu mu rëy moo xamante ne dina am ci Touba gi ci diggante jumaa euh, jumaa ju mag gi muy Touba ba ci Daaru Minam fépp fu fi ab dongo xaj fépp foo xamante ne jànkati xasida yi xaj nañ fa dinañ ko waajal ba ñu ne fa di jàng xasida yi dundal ko ci teewlu goo xam ne pas-pas bi lam ca wax sëñ Xamsatu mi loolu moom kenn ku ci ne la ci sa wàll ci teewlu gi rek lay ne delloo lépp seexul xaddim loolu kon man dama ko doon ubbee di xam ne ne kon mbooleem ñi ñu àndaloon ñu xam ne suñu yéenee mat na waaye Mbàkke ni la sëriñ bi doyloo yal na la fi yàlla suñu borom bàyyi nga yàgg fi lool ndax ni nga koy liggéeyal yaa ngi koy liggéey liggéeyal ca la mu gën a taamu mooy xasida yi ak yar dongo yi wan leen ne leen nit ñi de ñu ngi daw di wuti ji lu ne waaye ci bu ñu xamoon li nekk ci yam ci sëriñ bi ak yëngu ci moom ak fonkal ko xasidam yi mel ne lu baax lu ne moom moom moom la suñu borom di dàq mu ñëw fekk si ñu bari na lu nit ñi di ragal di ko daw ak di wut pexe yu ne fekk na saxoon ci sëriñ bi moo ca gënoon a gaaw kon sa taxawaay bii Mbàkke yàlla ko suñu borom yàggal